bépp député bu fi jël kàddu tey rek gërëm nañ la gërëm nañ la aussi ndax di ñu may ñu dalal xelu askan bi ci ñaari fànn fànn bi ci njëkk mooy président Macky Sall bi nga xam ne dañ ko jël joxaat ko confiance delloowaat ko ci bopp réew mi loolu nag mu def dañuy jàpp ne juróom at yi nga xam ne dawal na ko ñëw ne askan bi danaa xool seeni jafe-jafe ndax bi ñuy ñëw en 2012 lépp priorité la dëkk bi jax lool boo laalee courant mu metti nga laal ndox mu metti nga seet yoon doo ko gis nga bëgg faju mu jafe nga bëgg jot ci financement yéen a ko waxal seen bopp imma doo ci jot mbaa boo ci jotee tamit doo co doo ko jot ci anam ni ñu ko bëggoon jotee loolu lépp président indi ay mesures yoo xam ne mën nañ ne c'est sur la durée ci juróom-ñaari at yi mesures yi nga xam ne def na ko ci wàllu jàng ci walu enseignement supérieur ci walu agriculture ci walu tourisme yëpp résultat yi ñu sentir ko mais mu def leneen loo xam ne mën nañ ko jàppee transition mooy PSE bi mu indi ci acte 2 bi capital humain dugal na ci xeetu filets sociaux yoo xam ne képp koo xam ne groupe vulnérable nga ci réew mi rek jéem na la jàppale loolu bourse de sécurité familiale yi wane na ko couverture maladie universelle wane na ko subvention yi nga xam ne dugal na ko ci yenn secteur yi wane na ko mu ne nag sama quinquennat bii di ñëw li may dolli ginnaaw bi nguur gi jàppale askan wi ba pare ba ñu taxaw ndax am na honorable député bu ko wax sànq li ñu bëgg mooy dimbale nit ñi ba nga xam ne doo dinañ génn ci di wut ku leen dimbale mu ne nag quinquennat bii di ñëw damay indi ay initiative nationale initiative nationale yooyu mooy indi mu dugal ci benn bu économie sociale solidaire lan moy économie sociale solidaire économie sociale solidaire moy indi taxawaayu état ci askan bu né secteur bu né taxaway ba nga né wala la nga né di ci yëngatu état bi ñëw jappalé la ci tey wax ministère de la microfinance ak de l'économie sociale solidaire lan la nara def dañ nan bëgg na def de l'inclusion sociale par l'économie en quoi faisant soxlootul may ñëw ci difficulté yi nga xam ne financement yi indi na ko parce que jigéen ñi wax nañ ko honorable député yi fi jaar yëpp wax nañ ko di nga bëgg jug finan wuti financement doo am garantie di nga bëgg jug wuti financement taux d'intérêt yi gàllankoor la ba nga xam ne liggéey bi ngay def boo ci waroon am ñaar wala ñetti bénéfice li ñu ciy am day daal di tuuti di nga bëgg wut jóg wut financement ndogal fekk la ci ndax doo mën a fay xëy na ñu jël la yoon am ci yow dogal la as néew la nga doon jàppale sa njaboot mu tëla ñu ne lool lépp nag soxlawul ñuy wuti yeneen model ndax Sénégal yàlla dafa def dañu am suñuy model ba pare lii ci tontine lii ci leket lii ci natt lii ci mbootaay lii ci daayira lii ci coopérative lii ci mutuelle lii ci entreprise sociale loolu lépp président de la république ne dañ ciy indi taxawaayu état loolu mooy économie sociale solidaire te bu ñu defee loolu li nga xam ne dina ko indi comme résultat mooy dootuñu def comme honorable député bi ko wax booy ñëw na nga seet financement yi ndax ñun opposition bu ñuy ñëw géejawaay na ñu seet financement yi na ñu laajte opposition may dalal xelam président esprit boobu la bëgg génnee ci xelu sénégalais financement du pour majorité financement du pour opposition financement pour acteurs yi nga xam ne dañu jug pour liggéey la ndax nag

jox un calendrier de visite non noonu la ñuy def ndax bu fekkee Sénégal moo ñu tax a jóg foog nous bi ñu xam ne ñëpp a ko bokk loolu le ne ci ministère bi dinañ ko encadrer ci ay fànn gannaaw bi ñu déclaré année 2020 année de l'inclusion sociale par l'économie Nous avons ba mu am encadrement à travers un statut dinañu def le catalogue des projets région bu filière ba fa gën a taxaw acteurs ya fa ne ñëpp dinañ leen identifier ñëpp ñu organiser leen en chaîne de valeur ba nga xam ne dana jafe nga ne sama moroom jot na man jotuma ndax ñëpp kenn ku ne dinañ la dugal ci modèle boo xam ne dinañ lëkkaloo doole yi ndax ñu gën a rendre efficient financement yi wax nañ ko daanu dajul suuf mënuñu wut financement yoo xam ne nit ku ne mën nga ko jox mais mën nañu département yi créer un projet viable yo xamné population dinañ ci jëm kanam